Ababacar Fall maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay euh, fay soxna Moreau. nga nekk njiitu euh, GRADEC groupe de recherche et d'appui à la démocratie participative et la bonne gouvernance déjà euh, ma lay laaj sa xalaat ci xalif général des Mourides li mu demandé moom mooy ñu délocaliser bureau de vote yi nekkoon Touba nan nga gisee décision boobu. waaw décision boobu xam nga démb yaakaar naa depuis démb ba léegi moo nekk coow ci réew mi. Euh, démb ñu bëri wax nañ ci ça fait l'actualité comme ni ñu koy waxee mais tey gis nañu secrétaire généralu xalif bi génn daal def ay précisions parce que mbir mi ni ñu ko présenter woon dañu wax ne xalif bi dafa ne daanaka lépp luy bureau de vote bu nekk Touba nañ ko génne mais tey leeral bi ñu ci indi mooy sëriñ bi li mu wax mooy maanaam bureau de yi nga xam ne dañoo nekk maanaam ci euh, bërëb bi nga xam ne dafa jege jumaa ji entre alentour jumaa ji parce que loolu dafay indi coow et cetera ak yooyu yëpp daal. loolu la wax ne loolu nañu fexe ba euh, délocaliser ko mais dañu sax nañu seet bu mënee nekk donc loolu wax bi gën na leer man démb la ma ci waxoon mooy euh, question boobu il faut que nit ñi toog ñu examiner ko c'est vrai que de quoi de euh, Touba dafa nekk dëkk boo xam ne dëkku orma la et bi am na un certain nombre de de principes ak règles ak ay interdits yoo xam ne bëgg ko donc Touba donc il faut que lu mel noonu boo amee pour man la ma ci waxoon de ma ne dañoo war a waxtaan ak sëriñ bi parce que xëy na peut-être sëriñ bi amul information yi yëpp yi war ci maanaam conséquence yi nga xam moom mooy tukkee ci délocalisation yi mais tey gannaaw leeral bi ñu ci indi euh, loolu maanaam mbir mi lu gën a yomb la parce que tey du doon xëy na six cent euh, euh, euh, lieu de vote yi nekk Touba yëpp lu baax donc six cent bureau de vote la am donc dañuy xool bureau de vote yi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk ci périmètre maanaam cité religieuse bi ñu xool lu ñeen di toxalee ci dans la périmètre de ci périmètre Touba wala ay fu mel ni ay Mbàkke wala dëkk yi ko wër nga xam ne nag du jege jumaa ji lool lool lool loolu nag bu ñu ko waree def dama jàpp ne du jar ñuy maanaam defaraat carte yi comme ñenn ñi ni ñu koy waxee wala ñuy fexe di dindiwaat nit ñi di bindiwaat loolu yëpp ay gàllankoor lay indi nit ñi daanaka que lieu de vote yi ñooy changé mais bureau de vote yi changé wul mën nañu fexe nit ki nga xam ne dafa doon voté Touba mosquée ñu jël ko foofu ne ko kat léegi yaa ngi voté par exemple Mbacké wala en tout cas yaa ngi voté à la périphérie de Touba donc ñu informé ko ensuite ñu def campagne de communication bu ko defee képp koo xam ne loolu dina la impacté nga xam ne kat yow fii nga doon voté waaye béréb sàngam ngay voté ñu def foofu ay indication yu wane ñi doon voté par exemple béréb sàngam ci biir Touba léegi ñu ngi voté bokk beneen béréb loolu je crois campagne de communication boo xam ne war nañ ko def euh, administration électorale ak préfet yeeg sous préfet ak acteurs politiques yi def ko loolu moom mooy donc gën a yomb parce que bu concerne peut-être xëy na six cent de vote yëpp ay xëy na peut-être du mën na concerner cent wala deux cent biri de vote xamuñu mais en tout état de cause bu fekkee ne donc waxtaan nañu ak sëriñ bi ci conséquence yeeg yooyu yëpp te ñu jàpp ne mesure boobu daanaka mesure boo xam ne moom c'est c'est acte kenn mënu ci dellu gannaaw man jàpp naa ne war nañu door déjà xalaat naka la ñuy mën a organiser donc délocalisation boobu pour permettre ñi nga xam ne war nañu wote ñu wote te du indi benn maanaam euh, euh, galgal wala benn gàllankoor maintenant ci élection yi. parce que élection présidentielle la dafa soxlaal nit ñi sëriñ bi xam na ne nit ñi ay citoyen lañu dañoo am donc droit de vote donc yaakaar naa ne moom remettre en cause droit de vote nit ñi waaye li mu wax rek mooy ci wàllu organisation ñu seet ni ñuy defee mbir mi pour que mu bañ a am benn gàllankoor boo xam ne dina ko indi maanaam ci euh, cité religieuse bi. Mm-hmm. kon décision bi daal euh, du am euh, benn impact négatif ci processus électoral bi wala. non noonu non du ci am benn parce que xam nga processus électoral boo ko seetee ba seet ay ensemble ay opération la des fois di dem ba ci biir nga gis am jafe-jafe boo xam ne euh, def ci dafay ñëw taxaw ne kër si ne jonn mais boobaa administration électorale dañuy seet naka lañ koy saafaraa parce que bu dul woon li sax am na yeneen koy na difficulté yoo xam ne mën naa ñëw ci mise en œuvre processus électoral bi moo xam ci joxe carte yi moo xam ci leneen ak leneen donc difficulté bu amee dañuy seet naka lañ koy mën a saafaraa donc man jàpp naa ne lii du am benn yàqu boo xam ne dina ko indi moom ci processus électoral bi à la xëy na bu fekkee def nañu liggéey ba ñu war a def nit ñëpp nu mu ko nangu ko liggéey bi jaar yoon du am benn problème maintenant il faut ñu communiquer pour fexe ba taux de participation bi bañ a bañ a bañ a faible parce que bu fekkee ne nit ñi communiqué wuñ leen euh, ci maanaam que seen bureau de vote euh, seen lieu de vote dañ ko dañ ko changé yóbbu ko feneen et cetera ñu bëri xëy na du leen jaral ñu déplacé dem voté mm-hmm. euh, mën nañ koo tayal il faut que boobaa acteurs politiques yi ñi nga xam ne mooy candidats yi ñëpp def campagne de communication informer seen militants yi nguur gi dem def campagne de communication bu ko képp koo xam ne yow électeur nga xam ne nam nga voté te mesure bi impacté la nga xam ne fa nga daan voté léegi dootoo fa voté su lieu de vote dañ ko changé nga mën a am information pour que élection yi nga dem nga dem loolu jàpp naa ne daal vraiment du am incidence bu bu bu bu bu bu bu bu graaw ci processus électoral bi contrairement ak ñi ko ñenn ñi di waxee naan laalu mën na tax ñu ñu toxal élection yi ak yooyu loolu moom wax bu yàqu la mbiru taxal taxal élection yi loolu moom kenn mënu ko xalaat kenn mënu ko nangu parce que loolu boo xam ne. daanaka euh, euh, élection il faut que mu war a am échu le vingt cinq février élection yi war a am parce que boo fàttalikoo ci 2017 bi président posé débat bi ci affaire maanaam mandat ne def ko bëggoo wàññi de sept à cinq ans. Mhm. ba mu jokk ak conseil constitutionnel conseil constitutionnel dafa génne avis wax ne mandat bi donc kenn mënu ko wàññi kon nag ci décision boobu conseil constitutionnel jëloon régler problème problème mu maanaam mandat bi kenn mënu ko wàññi kenn mënu ko yokk kon nag wax naan dañuy reporter. pour mandat bi ñu yokkaat ko de deux ans loolu moom mënta nekk loolu wax bu yàqu la dañ ko war a teg ci suuf parce que mënul nekk. d'accord euh, kon euh, kon nga gis ni euh, mbir mi daal du impacter processus électoral bi taxul tamit ñuy wax waxi reportu élection yi actuellement ñu laaj la tuuti si si dialogue bi Ababacar Fall fan ngeen toll si dialogue bi démarré ngeen ko voilà comment ça se passe. waaw dialogue bi ñu ngi door a tàmbali maanaam waxtaan bi yëpp tàmbaleegul xam nga dialogue boo gis dafay am ay terme keroog ba ñu defee lancement officiel bi nit ñi dañ leen woo ñu ñëw ñu jox leen terme de référence yi. ku nekk dem xool terme de référence yi parce que poñ yi ñu ci war a waxtaan yëpp ëppoon na lu war a mën ñaar fukki poñ mais nit ñi lañu dem waxtaan information yi mu ci am mooy démb ba ñu dajee nit ñi waxtaan nañu ba juboo adopté maanaam code de conduite bi maanaam naka la ñuy doxalee réunion yéeg ak yu demee noonu ensuite Euh, euh, ci terme de référence yi wax nañ ni léegi dañuy jiital point prioritaire yi parce que am na point yoo xam ne ci dialogue deux mille dix neuf yi waxtaanoon nañ ci am na yoo xam ne sax juboo amoon nañ na ci ba noppi mais xëy na problème bi application moo desoon donc dañuy mettre l'accent sur les questions yi nga xam ne moom mooy priorité te loolu bu ñu ko jàppee def naa ne fukk poñ ak ñett la donc loolu moom réglé nañ ko léegi ñoom xam nga euh, ñetti fan la ñuy liggéey ci semaine bi altine ak ak ak ajuma yaakaar naa ne suba la ñuy war a dooraat léegi nag bu ñu dooraatee problème bi ñu am mooy kan moo war a jiite commission politique bi professeur Babacar Kanté la ñu jàppoon ñu njortoon ko mais moom dégg naa dafa indisponible nekk neewu fi donc léegi ñu ngi waxtaan ba xam kan la ñuy euh, euh, vraiment désigné pour mu jiite commission dialogue politique bi ci foofu la ñu nekk mais yaakaar naa ne vraiment euh, donc problème amul liggéey baa ngi door a tàmbali fii ak def naa ne ñaar fukki fan ak ñeent ci weer bi war na war na pare liggéeyam pour que président la république mën a def adresse à la nation bi nga xam ne moom la wax ne dina ko def le vingt cinq. voilà beneen laaj rek euh, huit mois moo des ci élection yi mais ay potentiel candidat comme Ousmane Sonko Karim Meïssa Wade xalifa Sall euh, ñoom ba léegi dañoo am ay jafe-jafe ak euh, justice sénégalaise ban jàng nga si am te moonte huit mois rek moo des ci élection bi kenn xamagul est-ce que dinañ mën a bokk. waaw moom xam nga kooku c'est des ay question yoo xam ne c'est des questions en discussion Euh, déjà dialogue bi je crois que loolu dañ ko aborder problème mu troisième mandat bi problème mu article L vingt neuf ak L trente yooyu parce que ci wàllu boobu dañ ñëwoon na ñaari euh, solution moo am soit ñu def amnistie wala ñu def nu mu tëti euh, ñu xoolaat article L vingt neuf L trente ñu xoolaat ko donc yooyu yëpp je crois c'est des points yoo xam ne bind nañ ko ci dialogue bi nit ñi dinañ ci waxtaan. en tout cas pour li concerné kaaw donc Karim ak Khalifa nit ñi danañ ci waxtaan maintenant nag bu dee kaaw Ousmane Sonko loolu beneen mbir la parce que euh, ñu ñu door a jóge ci procès yoo xam ne ñu ngi ko ñu ngi ko condamné euh, fraîchement donc maintenant est ce que bu fekkee ne révisé nañu article L vingt neuf ak loolu moom dina ci bénéficier wu wala kenn xamul et dans tous les cas lépp ñu ngi dépendre daal ci. Euh, euh, dialogue bi la dafay tukkee ak na président de la république donc di di wax parce que la ñuy séntu moom ci moom mooy nu te vraiment mu jël décision yoo xam ne dina indi dal ci réew mi parce que li nit ñi bëgg mooy ñu def ay élection yoo xam ne inclusive élection yoo xam ne duñu ñu beddi kenn képp ku nekk candidat da ngay bëgg da ngay nekk candidat voilà Ababacar Fall Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal bu baax ci euh, disponibilité bi voilà maa ngi leen di remercier man tamit voilà may fàttali yow yaay secrétaire général bu groupe de recherche et d'appui à la démocratie participative et la bonne gouvernance GRADEC ñu koy remercier bu baax a baax Ababacar Fall